اقرا باسم ربك الذي خلق بايا جاخ ايا جيمو جواج تي لي بروم خم خمي بيند ني نه مودي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله بايا جاخ موم نعم. القران واتينا نياري يون تي وير كور واتي جي جك غلاو المحفوظ لا نيو بيت الاستقي تي اسمان سي ديغلو اك ادينا دلو فاجوغي نك di wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi moom it ci weeru kor la door ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa juddu rek nekk di jullit loolu daal li mën na koo wax ndax dafa juddu amee jikkooy jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa judduwaale jikkooy jullit looloo tax mosta jaamu xërëb mosta def lu ko niru mosta def lu ñu sikki sàkka mosta am tuuma ba gannaaw gi dañ ko yokkal tur di ko tuddee sadiqul lamin diko xamne ki ne kii ku ñu wóolu la ci lépp diko xamne ki ne kii waxkatu la musta wax lu nekkul nonu la yonent bi yaro ci màkka ba am fa ñeen fukki at yàlla def nak bu weeru koor jotaan rek soxnaam su baax sax suñu ya khadija dal li koy pareel nag yóbbal boo xam dana tax mu mën am ay fan ci xaaru hilain di fa jaamu borom bi subhanahu wa taala yàlla yónneegul ko waaye ñu ne mu fay jaamu yàlla naka am ñu ne ci diinaa yonent yàlla ibrahim la doon jaamu yàlla am ñu ne déedéet xalaat bi nga xam ne xalaat mii nga xam ne ci façon jaamu yàlla yu mag yi la maanaam doomu aadama ji to toog <coughs> di xalaat man mii kana ma bind ki ma bind daal mooy suma borom waaye kile am kattan kile ko man waaw ah, bind nit ñi ci des xanaa yàlla waaw ku bind rab yi xanaa yàlla mu géej géej ngelaw lii ku leen bind xanaa yàlla jant beeg weer weeg biddiw yi ci des ku leen bind nga ne xanaa yàlla ku bind asamaan yi suñu borom subhanahu wa taala di di settantal kawtiifi yàlla yi yi nga xam ne moo di tegtal ak amam loolu ci jàmm yàlla yi foor la bokk soo jàngee alquran da xam loolu fu alquran toll mu nga naan xanaa du ngeen seet xanaa du ngeen xool xanaa du ngeen xalam xanaa du ngeen xalaat nangam ak nangam waaw ba tax na am nañu ne yonente bi sallallahu alayhi foofale dafa nekkoon di xalaat diggante moog boromam subhanahu wa taala ba jibril jëlee alquran ci ndigalal yàlla te néegu tedd boobale nga xam ne malaaka yu tedd ñoo ko fa bindoon لملائكة كرام بررة كم نيو باخ لاي ني تيد لاي مو جيلي كو فناك ا دال ديكوي انديل يونتي بي صلى الله عليه وسلم لي ني نتي لي القران واخناكم القران نينا انا انزلناه في ليله مباركه ني ني ندي نيوكو واتي سي غودي غو خامني جي دال بو نيو باركل لا مودي ليله القدر am na feneen fu mu ko wax ne inna anzalnaahu fi laylatil qadri ci guddi gi ñuy tuddee laylatul qadri ca la ko wàccee subhanahu wa taala alquran dellu na wax ne ah sahru ramadan alladi unzila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum alsahra falyasumhu alquran ah, ah, weeru koor a ngoog moo di weer wi nga xam ne ci la ci wàccee alquran mu nekk dim njub ñeel bépp nit ku nangu rek alquran gindi la waaw dalil yu set wecc la itam yoo xam ne yii day leeral am njub rek di teqale lépp loo xam ne lii dafa wuti ak dëgg képp koo xam ne kii ci yéen jullit ñi tekkee na weer wi seede na ko amut ci benn ngànt lenn ngant dalu ko ci na ko woor borom xam-xam yi ne fa man sayida minkum saara falyasumhu ay fa man xadara waxtahu minkum falyanwi siyaabahu képp ku fekkee waxtum te amuloo benn ngant na nga fas yéene or weer wi fa man sayida boobule su fekkee am nañu bugg a wax ne mooy feeg gisula weer wi warula or kon dana doy waar ndax am na ñoo xam ne seen i bët dafa naqari bu ñuy mën a gis weer hmm. seen loxo bët dafa jeex mënuñu mënatuñu gis dara kon ñooñu du weeru koor ndax duñu mën a gis weer wi ba tax na borom xam-xam yi dañu ne ku fekkee waxtu weeru koor wi na nga yéen or ko loolu la alquran naan faman shahida minkum sara falyasumhu jenn ak yéene nag dana ci doy ci mboolem weer wi moo xam ñaar fukki fan la ñu oor ak juróom-ñeent wala fanweeri fan yu kaamil lañu oor jenn yéene fas yéene oor weeru koor oor weeru koor wi yëpp dana doy euh, Malik ya wax loolu mashabu Malik ci kaw nag ne weeru koor de ñu ngi gis ne genn ak jaamu yàlla la gu taqaloo benn genn ak wareef la itam ci at mi lépp deme ni ka asaka maanaam li ngay génnee asaka ci ci sa xaalis bi wala li ngay génnee asaka ci sa gerte gi wala li ngay génnee asaka ci sa dugub ji wala li ngay génnee asaka ci sa jur gi ah. boo ko génnee rek benn yoon jenn yéene daf cay doy du jël ngay yéene di yéene di yéene at bis bu nekk ñoom noonu lañ ko gisee muy Malik ak ñamu Andal àndal te jenn yéene doy na ci waaye nag ci masabu Malik benn tey sopp nañ guddi gu nekk nga fas yéena or ëllëg sa maanaam fanaanoo koor fanaanoo yéenaay koor sopp nañu loolu ngir na ci kilifa yu baax yi daf ci am ñoo xam ne dañu ne guddi gu nekk da ngaa war a beesal kii yéene su ko defee soo beesalee euh, sàmmwante nga ak wuute boobu li nga xam ne moo ci xew imaamu Maalik moom dafa ne jenn yéene doy na naka noonu gépp ak koor boo xam ne gii dañ koy toftale maanaam toftale ga dafa war genn yéene daf cay doy ci masabu Malik lu demee ni ki weeru koor waxoon nañ ko lu demee ni ki kafaara waaw kafaara ci weeru koor mu mel ni dangaa tayoon dog ab ci dog ci ab bés te yaa ko tey dangaa war a kafaara xeetu kafaara yi nag nga tànn ci koor war koo toftale kon jenn yii na daf cay doy ak kafaara goo xam ne gi dangaa rayoon nit ah tax ngay kafaara moom itam jenn yii na daf cay doy ak kafaara joo xam ne ji ziar nga defoon sa soxna li ñuy tuddee gannaawal ah, di ko kafaara moom itam jenn yéene daf cay doy wala nga xam ne danga nga misir ci wàllu yàlla subhanahu wa taala ne da nga woor nangami fan kon nangami fan yu taftaloo yoo yële genn yéena daf cay doy ni ko ko misiroon or weer bam dee ne weer sangam baraxlu ah wala tabaski weer weer woo xam ne daal da nga ko misir pour or ko wala fukki fan yu toftale su ko defee genn yéena dana ca doy parce que koor yi su fekkee kafaara jullit bi war na koo def su bàyyee benn fan kon bépp jullit boo xam ne bii baalix na na bàyyi xelam te bàyyi kaf nag ci diine kaf ci diine dafay sànjiloo yàlla borom bi subhanahu wa kaf ci diine dafay moyloo dafay dafay merloo yàlla ba na mbokk yi nañu leen bàyyi kaf ci diine nañu leen bàyyi fo ci diine bépp jullit muy di góor di jigéen boo xam ne bii weer yi feeñ na fekk amuloo benn ngant te ngant yi xëy na wax ko ci kanam feebaruloo nekkuloo ci yoonu tukki woo xam ne wii jar na ko waaye waaye na nga waaye dangay ngay gis doomi jullit yi nga xam ne baalix nañ suñu dee góor jot nañoo am soxna suñu dee jigéen jot nañoo am doom ñoom ngay gis ñuy ñuy kasantoo weeru koor waaw di ko kafantoo di ko fayee rek di ree rek defe na ñoo nekk ci nag waaw kale naan man ñetti fan laa woor kale naan man dee man kon malak, waaw maala raw man orna naa juróom ñaari fan am ñu naan man orna, naa lu dem ci fukki fan ak juróom do ah, mbokk yi soo ooroon ñaar fukki fan ak juróom ñett juróom ñeenteel ba nga lank bañ koo or te amoo benn ngant kon it da ngay kafaara rek waaw ba tax na weer wi dañ ko war a or suñuy or suñ koy or nañ ko or ñu xam ne ay jullit lañ su fekkee pare ñu pour or ko ñu far ko bàyyi rek noppal suñu bopp nag waaye sonnal suñu bopp itam de sonnal suñu bopp xam naa su ma ne noppal suñu bopp mooy ñu xam foo féetee xam ne xam ci parti boo bokk waaye foye gi ñuy foye weeru koor foye gi ñuy foye julli foye gi ñu foye alquran jéggi na dayo nag fi mu ne ba tax na jar na bàyyi xel nag waaw maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk bépp ndaw ci jamono naka noonu waxoon nañ ko ci gannaaw ne genn yéena doy na ndere nag nga xam ne dafa am lu dog koor gi ci loo xam ne lii du sa sago nga xam ne danga nga bàyyi ko ci place di tukki boo xam ne fii masaafatu xasrin la jaroon na nga wàññi julli gis nga ne it da nga ci am coono bu jar war ngaa dog sa weeru koor nga dog sa weeru koor kenn forcé wul la de ndax alquran dafa ne su ngeen mënoon a ci tukki mi dee moo gën wa an tasumu xayrul lakum waaye su la neexee dog nag comme may nañ la ko ruuf ak yolombal la ak may la gu la borom bi jox subhanahu wa taala su fekkee ne teewar gii ngay toftale lu demee ni kim tukki dogu ko wala jigen jo xamne dafa gis regal bu di mbeureuk deret wala jigen ju am dom ah kon dañ ko wara toftale genn yene da fay doy wa su fekke dox na ngir loolu nak ñu ne bon sooy warat da ngay delu besal ci yene ndax dafa dogon te liko dogon sharia la soy dorat da ngay dal di yéenaat nga ne jigéen li gis mbeureuk ci biir wer koor bi tax muy ñaka or dana lu dem ci ñetti fan ñeenti fan juróomi fan ba fam yem rek su su demee ba set sangu jannaaba door di wooraat ko defee nag dana beesal kii nga xam dafa am sikki sàkka ci kooram dafay e, téye boppam ci lépp loo xam ne lii day dog weeru koor bam am lu ko wóor bam am lu ko wóor waaye su ko defee itam du fas yéene or nag ndax bu ooroon itam fekk mu ngay déngi déng amut lu ko leer loola moom du mën a taxaw taxawaayu weeru koor mukk maadaama yaa ngi déngi déngi rek sa koor du mën a wuutu ko rek farata looloo tax bindkat bi ne daalik li anna al jazma bi niyati shartun fi sixatiha nee na yéene daal pour mu wóor wér fokk rek da ngay dogu ci ne lii ma nekk nii gëm naa ni muy li am maanaam gëm naa ne weer yi feeñ na ëllëg yàlla dafa ne naa or te yéene nag su ko defee nga gis mu dal di wér ku ñu naan Abdul Baari nee na yéene dee balaa ñoo gis weer wi loolu moom neen rek la doo mën a fas yéene or weer wi fekk weer wi feeñagul jaamu yàlla jotagul déedéet koy gis soog ko yéene su fekkoon ne ah, jullit bi dafa fas yéene or weeru koor fekk weer wi saxagul weer wi feeñagul mu dal di xëy lekkut naanut bés booba nag mu ñëw leer nañu ne ci weeru koor la bokk bés booba du ko doy foog dina ko fay ndax yéen a ja moo ñëwu doon ci palaasam lam yi waaye nag du tere dana continuer du dog ngir di ngir xormaal weeru koor bu defee mu fay bis ba li ma wax mooy ku façon yéene fekk weer yi feeñagut ne man ëllëg damay woor waaye dégg gu la fenn weer yi feeñ na nga tëddi nelaw bër set ñu ne weer yi feeñ na nga continuer lekkuloo naanuloo eh, loola du tax ñu ne am nga weeru koor foog da fay bis ba waaye du tax na nga lekk da ngay continuer ñàkk lekk ak ñàkk naan ak lépp loo xam ne li koor aaye na la ko nga sori ko ba bés ba jeex ngir ormaay weeru koor ormaay weeru koor benn jullit waru koo ñemee xotti naka noonu deefu woor itam bés boo xam ne bii bésu sikki sàkka la ngir ne dangaa bëgg a léemtu maanaam dafa am ñu ne ëllëg de weeru koor la am ñu ne déedéet am ñu ne ëllëg mën naa ñàkk mën naa nekk weeru koor am ñu ne waaye mën naa ñàkk nekk weeru koor itam mu nekk bésu sikki sàkka nga ne man nag koon ëllëg dama koy or ngir ne bu bokkee ci weeru koor fekk oroon naa ko déedéet wala yu saamu yoomu sakki ah. waaw yu saamu yoomu sakki bi yaxtaata bihi min ramadan dee fu woor weeru euh, bésab sikki sàkka mukk ngir rek bu ko lemtu boole ko ci weeru koor dana dagan nag bis bu demee noonu nit ki woor ko ci kaw coobareem wala nisiroon ko da ko koo nisiroon balaa bés baa jot mu ñëw dajjel bés boobule wala yow danga ci doon fay bor ba weeru koor mu ñëw dajjel bés boobule loolu moom dana dagan waaye doo ko mën a woor mukk ngir ne weeru koor la fekk weeru koor wi gis-gis saxagul ولكن هذا بالنسبة للصوم الفرض آه. معنى نيجي دون وقتان تكوري نقم نيجي موي كورك فرد أمنا يرين كور في إسلام يقم نيجي نكون دي فرد واي إسلام مو نيكو إندل تيتم نك أي نيلي يمك نكتا بكنا كي بسيري لبسوب عرفة بسوب عرفات nga woor ko yow mi nga xam ne ajuloo makka ngir dafa ñëw ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne bésub arafa woor ko danay tax yàlla baalal la sa bakkaari at mi passé woon ak bakkaari at mi ñëw si eh, am na boroom xam-xam yu fis firi hadis boobu le ne faral la bakkaari at mi ñëw si nag li muy firi mooy kuy oor bésub arafa yàlla dina la watul sa diine watul la sam njub dimbale la ci saytaane bee bàkkaar yi nga waroon a def ñu bindal la ca bàkkaar dootoo ko far def sax am nañu ko firi noonu le waaye hadis bi daal moom dafa ne rek yu kafiru zunuba sana almadiya wal mustaqbila ah jëlee nañ ci abdullah ibnu abbas mu di wax ne hadis bii de mbéga ngi ci ñeel kii or bisub arafaat ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam béggalee na ko ne xëy na da nga dund at mi ci topp gannaaw nee na ko danañ la jéggal say bàkkaar ci at mi ci topp kon dafa ma dafa mel ni da nga ci dund ndax bés boo fekkeewu doo ca mën a am bàkkaar sunna si nga xam ne sunna su tarawih la dafa ñëw ci guddi weeru koor nekk di ñaar fukki rakka Ah, yoo xam ne yii le gannaaw si nga di nga benn rakk ñu tuddee ko wetal ñu di ko defee ci jàkka yi jiital kenn ci jullit bi mu nekk di seen élimaan ñu koy def gannaaw jullit gee waaye comme neexoon itam nga def ko ci sa biir néeg wa man shaahu an yuqimaha fi baytihi an yafaal mën nga koo def ci sa biir néeg yàgg say ñoñ mel sa soxna ak say doom ñu ne jëf jëf ji sax moo gën a rafet ci koo xam ne kii moom yéenaam dëgër na te itam ñàkk a teewam ca jàkka ja du tax jàkka ja wéet waaye képp koo xamee ni kii yow sa yéena wala sa xam-xam tolluwu ni wala boog ni nga mel ci biir mbooloom jullit ñi soo géejee ca jàkka ja rek man naa tax jàkka ja mujj wéet kon lay gën mooy nga dem defee ji ko ca jàkka ja solo nañ jële ci yaa Aïcha yàlla ko yàlla gërëm mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de masta ëppal képp ci weeru koor ak ci leneen lu dul weeru koor fukki rakka ak ñaar yoo xam ne gannaaw si ga nag lay julli wetar te moo di benn rakka boobu li nga xam ne moom dong rek day julli dal di taayu sëlmal kon loolu li muy firi moo di ne euh, naafila weeru koor yaa Aysa nee na <clears throat> su fekkee dañ koy natt ci jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi dafay nekk li fukki rakka ak ñett na fukki rakala ak ñaar dal di julli wetam Amna benen beneen riwaaya bu wax ne fukki rakka ak ben ida asrata rakka melni fukki rakka gannaaw saga gannaaw si nga julli wetar amna benen riwaya bu wax ne yonenti bi dal na julli fukki rakka ak juroom amna benen riwaya bu wax ne yonenti bi dal na julli fukki rakka ak juroom ñaar waaye ci mujj ak dundam dellu woon na di julli juróom-ñeenti rakka xam naa loolu moo di julli juróom-ñeenti rakka dal di julli ba am na ñu ne juróom-ñaari rakka loolu bon dafay nekk ni juróom-benn rakka mu julli wetar muy juróom-ñaari rakka kon yëpp ay riwaayaat la yoo xam ne boroom xam-xam yi solo nañu ko naka taxaw guddi nag di la ñëw na ci ay hadis yoo xam ne yii xaw nañoo bañ wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxaw ah, taxawaayu ramadan moo di naafila weeru koor yi la def ko ci kaw gëm ak yàlla ak sellal ak sàkku tiyaabo yàlla jéggal ko ay bakkaaram yi paase woon hadis boobule muttafaqun alayh yonent bi sallallahu alayhi wa daan na dundal guddi weeru koor su fekkee fukki fan yu mujj yee jot na ah, mu daldi fagaru nag di ee bépp soxnaam suy nelaw di ee bépp xale wala bépp mag boo xam ne mu ngi ci kër gi te mën a julli ngir rek ah, waxtu la woo xam ne wii kooraay ga jar na képp ku nekk la nga man nga def ko ca loolu taxoon ñun ci sallallahu alayhi wasallam daan ci boole njabootam yépp muslim <clears throat> solo na ko wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na jàng alquran dëgg dëgg jàngi alquran ci weeru koor daan na yàggal njàng ma itam lu gën a bari ci nim ko daan yàggalee <clears throat> ci beneen jamaano bu dul weeru koor wax nañu ne ku ñu naan Hudayfatu al-Yamani julli na ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa ah, ci weeru koor yonente bi jàng ci guddi googule suratul baqara ba mu jeex jàng ca ali imran ba mu jeex jàng ca suratu nisa ba mu jeex ñetti saar yi yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa jàng na leen ci genn guddi di ko naafila ci weeru bu day fatu teg te ne façon boo xamee ne nag yonent bi du romb benn aaya boo xam ne dafay kuppaate wala aaya bu raglu nira boo xamee ne taxaw na fa di ñaan boroomam subhanahu wa taala xam nga ne loolu taxawaay bu yàgg la yonent bi yàlla ne ko rattilil qur'ana tartila ku daan diigal jàngam alxuraanam kon bu yonent bi taxawee jàng ñetti saar yi loolu mën naa jël guddi loolu tax sax hadis fama salla rakaatayn xatta jaa bilalun fa aadanahu bi salaati balaa pare ñaari rakka yu ma tëkk la bilaal ñëw di ko yëgal ne ko fajar gi dee jublu si na sallallahu alayhi wa sallam kon loolu bu mu nax kenn nag ci la yonent bi sallallahu alayhi ñaari rakka la julli mos naa julli ñaari rakka ci weeru koor wala ñeenti rakka wala juróom benn rakka teg wetar wala juróom ah, ñetti rakka teg ca wetar muy juróom ñeent wala fukki rakka teg wetar muy fukk ak benn wala fukki rakka ak ñaar teg wetar muy fukk ak ñett lii lépp bu mu jël kenn nga defee ne danga ngaa war a këpp këpp rek mu jeex tàkk nga dem taxaw fële yonent bi sallallahu ak jullim dafa daan yàgg lool gis nga ko ñaari rakkaam yi yëpp ñaari yi rek jël na guddi gi lépp ah, dellu nañu solo ci sahih al buxaari ne yonent bi nee na weeru koor ak naafila ak weeru koor dañuy rëmm ñoom ñaar jaamu yàlla bi bés pénc jullit bi su fekkee da ngaa boole di woor bëccëg bi guddi gi nga naati la yonent bi ne sa ñaari jëf yooyu le dañu lay rëmu bis ci njàll mu ne koor gi day wax ni eh yow sama borom man de maa ko tere woon lekk ak naan ak lépp lu mu daan bànneexoo ci bëccëg bi kon may ma ma rëmu ko alquran ne eh yow sama borom man it maa ko daan teree nelaw guddi kon may ma moromu ko mu ne su ko defee ñoom ñaar ñu jox leen diggal ñu dal di rëmmu jàmm weeru koor weer la woo xam ne pour digle lu baax la ak tere lu bon naka sax dundab jullit lépp pour di digle lu baax di tere lu ñaaw rek la waaye soo gisee ñu tànn weer bi wax ci loolu weer wi dafa gën a am orma bépp weer bu dul moom weeru jëf lu baax la weere it weeru joxe taraanga la weeru joxe njëkk la weeru dolli orma la weeru maye la weeru saraxa la lépp lu daan lu nit daan def ci lu baax weer wii daf ko war a yokk lépp loo xam ne jullit bi daan na ko daw ci lu ñaaw ci weeru koor teroo daf ko war a yokk waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na afdalu sadaqati sadaqatun fi ramadan nee sarax bi gën ci sarax yi mooy sarax bi ñu joxe ci biir weeru koor waaw yonent bi sallallahu alayhi wa dellu ca teg ne képp koo xam ne kii jox nga ndogu ku wooroon moo xam ci kaw ñam la wala lu ñuy naan te jëlee ko ci loo xam ne lii lu dagal la maanaam sàccoo ko defoo ko leneen loo xam ne lu yàlla xaraamal la waaw te loolu nga xamit bokk ci ñam yi jullit war a lekk loolu tax mu ne ala taamin aw sharabin min halalin su ko defee malaaka yi dinañu la ñaanal ci jamono weeru koor bi yépp te jibril alayhi salatu wasalaam dana la ñaanal ci laylatul qadr muy guddi tam xaret jibril dana la ko ñaanal te jibril alayhi salatu wasalaam ku rëy la fa yàlla subhanahu wa taala wax nañu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a tabe ku yàlla bind ci def lu baax ajwadu nnaasi bil xayr sallallahu alayhi wa sallam waaye li muy tabe tabe ak tabeem daf daan yokku ci bépp jamono boo xamee ne weeru koor teru na béba muy dee rawatina nag soo xamee ne jibril dajee na ak moom sallallahu alayhi wa sallam di ko jàngaloo alquran di ko jàngaloo alquran ah jibril alayhi salaatu wa salaam dafa baaxoo woon jamaano boo xamee ne rek weeru koor jot na li wàccoon ci alquran dafay ñëw yonent bi tari ci kanamam mais mu jeex takk ah, weer wi mu jawoor nag daf ko tari ñaari yoon ca la jublu nag ne ren dee jibil def loo na ma loo xam ne li ma ko foogee la ma ko teg rek moo dina suma suma dund la ca des bareetul weeru koor weeru yaru la jaam bi yaru ànd ak boroomam yaru ànd ak yonentam yàlla bi di muhammad sallallahu alayhi wa yaru ànd ak jullit yëpp naka ngay yaroo ànd ak yàlla moo di di wéyal ay ndigalam di ko santit ci ay xiwalam di tudd ay turam te itam ah, di ko xelaat jamono ju nekk di ko yaakaar mu jéggal la say bakkaar di ko yaakaar mu fajal la sa bépp xaajo àddina ak alaaxira te di ragal mbugalam te di ko moytandiku jamono ju nekk nag te bañ a naago ci yërmandeem لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يرمان دي الله كن ورسي ناغو أو كن ورسي ناغو كي يرمان دي يلا أقلو من أجانكو أنتل دنا ورا توب فساسا رواتنا نك سلا وير كورتكي في الدنيا nga tuub fa saasa te fas yéene dootoo dellu mukk yàlla la taxoon a tuub borom bi subhanahu wa taala fir na doom nee na leen maa lakum laa tarjuuna lillahi waqaaran wa qad xalaqakum atwaaran kon borom bi subhanahu wa taala ah, ci weeru weeru mag wii nañu ci rafetal suñu yéene pomp ci suñuy xol ba mu set suñu diggante ak moom am teggin suñu diggante ak yonentab yàlla bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom soo ko gëmee gëm nga yonent yi ci des yëpp ndax moom loolu la ñu wan wane ne ab jullit moom du am ak teqale ci diggante ñu yàlla yónni kon waxtu wuy leen la nga teg am teg yin sa digganteeg Muhammad alayhi salaatu wa salaam la muy firi ak yonent yi ci des yëpp nga amal leen xorma bëgg leen pare pour topp seeni sunna kon ci naafila weeru koor daanaka rek foofu la ñuy ndax li ci jullit yi def bari na waaye Ah, dañoo bëggoon a jàll ci muurum koor ndax dafa dëgmal si te beneen ajjuma suñ ko yàlla mayee ci jàmm dafay fekk weeru koor yi mel ni lu paase looloo tax ñu ne kon li des ci waxtu wi ñu def ko ci muurum koor muurum koor sarax la soo xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko farataal ci xeet wi ci atum ñaareel ca gàddaay ga ni nga gisee yeneeni mbir ci sariya yu bari yu takku yëpp ñu ngi leen faratal ci atum ñaareel ci gàddaay ga li tax ñu yoonal ko nag moom muudum koor ngir rek setal aji woor ji ci ay caaxaan ak rëcc rëcc yoo xam ne daloon na ko ci biir weer wi ngir yàlla faral ko ba bakkaaram setal ko ak itam yërëm ki nga xam ne bu aaju la jëm ci mbirum koor mu di aju ñàkk ji rawatina miskin yi nag waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nee na jullit yi na ngeen leen dimbale mu di miskin yi dimbale leen leen na ngeen leen tegal toroxtaandew yalwaan na ngeen leen tegal toroxtaandew yalwaan ci bis bile ngeen fexe bu jenn aji ñàkk dem yalwaani ngeen fexe bu benn miskin dem yalwaani na ngeen leen jox seen muur am na ci lenn ci boroom xam-xam yi ñu wax ni koor sax dañ koy ariteel boroom